AFT TV moo leen di may xikmatul yow mi xikmatul yow mi ak Serigne Saliou Sy AFT TV arrahmanu wa huwa rahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al uda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali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 fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul mi bi ñu leen baaxoo indi bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiqam seen mbokk Saliou si da leen ko defal ñoo ngi àddoo fii ci euh, institut xikmatul mi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala ci fixe bi 33 951 49 44 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li ñu tàmbale woon démb mu jëm ci xew-xewu jamono te mooy tawat ji nga xam ne lëmbee na jamono te jaaxal waa àdduna mooy coronavirus te démb ñu andi woon ci ab tàmbale ñoo ngi xamle ne ah, euh, mbir la moo xam ne ni mbas la mbas nag moo shahid faatu ci yoonu yàlla ñoo yem ci ab julit ñun sénégalais nag amuñu culture nangul sunuy baay wala sunuy maam ku ci faatu ci shahid ci yoonu yàlla wala boog ku ci faatu ci mbas te loolu moo mu faatu ci shahid nekk bokk ci shuhadaaw yi ñoo yem bëri na ci nit yàlla yi ñoo xam ne daan ñaan faatu ci yoonu yàlla nekk ay shuhada waaye bu fekkee na xareb lislaam am amutit yàlla mën na leen koo defal ñu génn àdduna ci mbas loolu am na ba tàyyi maanaam ci balaa yu demee nii saxaaba yi ridwaanallaahi taala alayhim ajmain ku ci masaan di génn di dem ci xare da ngay ñaan bañ a delsi maanaam sa bakk sa bakkan rot ci yoonu yàlla am na ci ñu ko yàlla may jagleel leen am na ñoo xam ne nag ñaan nañ ko waaye suñu borom leneen la dogal ci ñoom ku mel ni Xaalid ibnu Walid nga xam ne jàmbaar la woon loolu ci lislaam ñaan na ko ba tàyyi ndeysaan waaye dafa eh, demee neneen Bilaal ibnu Rabaax ñaan na ko ba tàyyi waaye faatuwut ci xare waaye moom tamit ci mbas la faatoo kon nga xam ne ni moom tamit mel na ni yàlla may na ko ko ca foofa euh, kon ñu jàpp ne du lu jomb kenn nekkul nekkul loo xam ne ni ak doyadi la maanaam faatu ci mbas wala faatu ci yoonu yàlla du du ak doyadi ci ab jullit Sénégalais nag dafa mel ni nanguwut loolu du tamit ni ma koy faral di waxee ndax yàlla kat nanguwut ku ku naagu dem jàpp na yàlla du la yërëm nga ñaaw ci moom njortu yàlla bëgg ko laa taqnatu min rahmatullahi inna allaha yaxfiru dunuba jamia waaye nim bañee ku naagu yërmandeem it noonu la bañee ku naagu am pexeem maanaam ku yaapa ku yaakaar ne daal mbiram yow euh, danga cee mucc for force yàlla amul lenn lu muy defal ab jaam ci ak force lu mu defal ab jaam rek ci ngëneel la ko teg kon nag yàlla dara waru ci ab jaam kon li am solo moom mooy diggante Eh, ragal yàlla ak yaakaar yàlla ci la ab jaam war a nekk xaw xawf war raj baynal xawf war raja sëñ Tuubaa doom loolu la wax bu ñu demee ci ma xaalixul niran day wax ne wa saxa am na taaxatal laha thalaathatun min al usuli awwaluha al xawfu wa thaniha ar raja wal xubbu thalisan lisil usuli jaa nee na topp yàlla kat ñetti mbir la ba ci njëkk mooy nga ragal ko lool di ko wattandi ko waaye ragal gi nag loo ko ragal ragal bu mu ànd ak nga ñaaw njort si moom na nga booleeg yaakaar ko kon diggante ragal ak yaakaar fi la ab jaam war taxaw booleek sopp yàlla gu mat sëkk kon ñiy wax leneen waa jàpp ne mbir mi warta àgg fee wala warta àgg ca loolu dañoo jàngul taarixul islaam dañoo jàngul histoire sëñ Tuubaa ak mbas yi fi am te yooyu danañ ci ñëw bu subaa ci teewaayu sëñ Tuubaa muy yu métti yoo xam ne dal na ay ay ay kilifa ak seeni njaboot te boobu sëriñ baa ngi te loolu yàqul dara ci ñu doon ay murid saadix yi yàqul dara ci yàlla di yàlla itam loo ne yàlla du ko def yàlla def na lu ko ëpp te du tee mu yàlla kon nag nit ki dafa war a nekk ci tiit waaye nag boole ko yaakaar yàlla li ma doon wax démb ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juñul na ci ak mu jëm ne am na mbas muy ñëw bi mu fi jógee ci ci jamono yi Seydina Omar am na mbas mu metti mu ñëw moo xam ne kubaaru saxaaba ñu bari ci lañ dem te ñooña ay boroomi daraja leen di ay boroomi maqaama ndax sëñ Tuubaa noonu nañu saxaaba yi ñooy seen baay ci diine baayub diine nag mënoo fexe fexe ba du doon sa baay kon nag nañ bàyyi xel ne mën naa mën naa àgg fune mën naa dal ku nekk te loolu du waral ak doye de mbas moom mbas mu metti la am na saxaaba yu ci dem yu yu rëy daraja abi ubayda amir ibnul jarrah ci la dem te kooku la yonent bi tudde woon aminul umma mu bokk ci al asharatul mubashara bil janna fukki ñi yonent bi garanti woon seen àjjana bokk ci ñi ñi demoon badar ak li yàlla wax ci waa badar ñëpp abi ubayda ca la dem muas ibnu jabal ca la dem ñëpp xam nañ darajaam ak maqaamam ak diggma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yazid ibnu abi sufyan ca la dem fadlu ibnu abbas ca la dem te ku réyoon daraja la bokkoon na ci ñi doon taxaw yonent bi mu fi jógee ñi ko doon sang ñi ko doon taxaw ci la bokkoon sahlu ibnu amr ci la dem moo ko amrul baayam abu jandal ci la dem surax bil ci la dem ak yeneen saxaaba yoo xam ne boo ko doon lim du jeex wax nañ ne ñetti fan rek ca mbas mooma maanaam épidémie boobu ñetti fan rek lu mat trente mille personnes faatu nañ ci kon nag te ñoo ñëpp ñu baax lañ kon nag mbir mi dafa war a nekk mbir moo xam ne nii kat ku ci yàlla boole mënoo fexe fexe fexe fexe ba mucc ci